أعوذ بالله سميع عليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أونك يا معين وبك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وثيابها وحوت الأرواح وحزائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله أيتها الجلسة الكريمة أحييكم بتحية الإسلام وهي أفضل التحيات هي ثلاث كلمات min salaamin wa rahma wal baraka mbokk yi ñoom leen nuyu kenn ku nekk ci yéen ko ziyaare ginnaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala moom mi yeyoo sant ngir anam yu bëri ñu koy tënk rek ci alhamdulillahi ala kulli xaalin ndax tey jii war nañu sant yàlla bi ñu yàlla mayee ñun ñu fi toog ñu ronu ci suufu kew bu mag boobu di suñu bàyyi Oustaz Papa Abdoulahi Lay nga xamante ni fii ma toog bu suuf si doon seede dina ni di kunta mii di waxtaan tey ci bàyyam imaam Papa mu jàngal ñu laxdar yi jàngal ñu sañu ay baat xam-xam boobu mbaar mi fii la nekk loolu lu yàgg la ñu fekk fi booba yoom suñu mag yi nga xamante ni mooy samba sekk mii di bàcc ñoom ñoo yoroon booba daara ji di jàngale ci classe arabe bi waaye ñun bu ñu ñëwee dañuy dem ci moom mu jàngal ñu nga xamante ni mooy téere xam-xam yi ak ndaw kuy imam ndaw kuy kon ñoo ngi nuyu ñëpp di jaarale suñu nuyoo tamit ci suñu xalifa muy sëñ Mansour ndax nit ku nekk li ko yàlla subhaanahu wa taala cërale dafay baax nga nangul ko ko te loolu moom moo ko moom te wax dëgg yàlla tamit na la yàlla joxee cër te kenn xëccewu ko ak yow te nangu kaa bokk ak ñëpp nga ko bokkal dafa war a xam li nga ko bokk li nga moom kon sëriñ Mansour ñoom lay ziyaare bu baax baax comme ni ko wàcc waxee rek bu ñu noree lim magi daara nekk dañ fiy day jël temps bi te am na waxtaan bu ñu xaar ci kanam bu ko defee ñoom ñëpp rek ñoo leen di boole di leen di nuyu ci nuyu ñii nuyu Mansour mu jëlaale ñëpp yóbbaale ñëpp di nuyu suñu yaay yi baax ñi nga xamante ni ñoo toog ñu bàjjet ak suñu tànt ñoo ngi leen di nuyu baax di jox nuyoo jigéen yëpp seen loxo thème bi ñuy war a waxtaanee tey nag sëriñ Samba Seck muy professeur Samba Seck wax na ko muy kem boo xamante ni thème bu am solo la kem boo xamante ni actualité la ñu koy dund ci réew mi waaye yamul ci réew mi ñu koy dund ci sous raison bi yëpp waaye yamul ci sous raison bi ñu koy dund tamit ci àdduna bi yëpp ndax réew moo fi dem tey am na loolu ñuy wax immigration clandestine muy al hijrat gayru charia muy gàddaay boo xamante ni teguwul ci yoon gàddaay bu baat bi diisee ñi nga xamante ni ñuy faral di topp baatu olof yi mooy tukki boo xamante ni teguwul ci yoon ci yooyu nag lañu fas yéenee waxtaane comme ni nga xamante ni noonu la ko professeur junjee ci muqaddima bu am solo bi mu def wax ni ñun tey dinañu leeral lan mooy gàddaay loolu mooy suñu tomb bu njëkk ñaareelu tomb bi mooy gàddaay yan ñooy ay façon yi ci am anwaawul hijra waaye tamit dinañ indi li nga xamante ni mooy ay cëslaay ay adil nga xamante ni moom la alquran indi wax ci lu jëm ci wàll gàddaay sunna tamit indi ko loolu du ñàkk ñu indi ko ci waxtaan bi insha allahu taala dinañ indi tamit dañuy wax cause yi muy sabab yi Euh, asbaabu hijab sirriya dinañ ko indi incha allah bu ñu paree nag ñu indi tamit atte atte la mooy gàddaay ndax islam lépp loo xamante ni jullit bi da koy dund ci biir dundam islam am noonu ko ci wax ni ko lii daa la fay war a boo defee lii daan bii moo la ciy fekk atte yooyu incha allahu taala tamit dinañ ci dégg kon dañuy dugg rek ci thème bi mu baax a comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee muy mawqiful islaam fil hijrati xayri shar'iyya taxawaayu diine islaam ci immigration clandestine boo demee ci ñiy bind ci wàllu arab dañuy jël baat boobu ñuy wax immigration clandestine dinañ ko tuddee tudd yu bëri waaye tudd yëpp day dellu ci benn maanaam ndax dañ koy war al hijratu xayru shar'iyya mooy gàddaay boo xamante ni ko ci yoon ko ci loi dafa nekk gàddaay boo xamante ni koy def teguwul ci loi sa koy def clandestinement beneen bi ci des dinañ ko tuddee al hijratu mooy gàddaay boo xamante ni koy def da koy def ngir nëbbatu tukkib nëbbatu waaw tukkim nag ba ñoom dinañ ko tuddee noonu dinañ ko tuddee tamit al hijratu xayru nizamiya gàddaay boo xamante ni tegul tamit ci organisation bi nga xamante ni moom la adduna bi yëpp boole tënk ni nii la war a doxee ku bëgg a tukki jóge ci réew dem dugg ci beneen réew ci yoon yi nga war a jaar ci ni nga xamante ni noonu la ko war a defee mooy ñaan visa ñu may la visa waaye war nga am séjour war nga am invitation nga dem ba ñu la nangami fan nga fi def wara nangami at nga fi def waxtu bu jotee da ngay ñew wané ni ma ngi ci biir réew mi ñu xamni ni ñi def immigration clandestine nak du ñu jaar ci bolu kon immigration clandestine tour yoy ñoy touram li nga xamante ni bindkati arab yi dañ koy faral di wax muy ñetti tour yi koy bokk di ko xamee bu ñëwee ci definition immigration clandestine muy gàddaay dinañ gis nii ñun olof sax ñu ngi koy wax mbëkk mi euh, bërki démb bu am na benn association bu ñëwoon benn ONG bi ñu doon ci ñën lañu jaaroon ñu ànd ak ñoom dugg ci biir dëkk bi wax ak imaam yi ba ñëw ci imaam Moussa Lay bi keroog ñu ñëwee ma proposé moom mii mu defal leen yi bi nga xamante ni moom la ñu waroon a def ci immigration clandestine ñoo ko defee woon sama buntu kër keroog Moussa def fa waxtaan bu mucc ayib bu matale ci temps bu gàtt kon ñoolu ñu ko koy seedeel di ko rafetlu bu baax a baax a baax waaye ñoom keroog bi ñu ñëwee ci baatu mbëkk rek dama leen di wax ni ñi nga xamante ne ñoo jël immigration clandestine tuddee ko li nga xam mooy mbëkk mbëkk rek dafa wóoru ndax mooy mbëkk moom mbëkkal lu nooy waaye boo bëggee lu dëgër da ngay gaañ kon loolu rek dafay wane ni ci jàngkat ñun ñiy jàngale baat yi dafa am mbay ay wax ñuy wax benn buñ ko dugal ci biir phrase boo déggee benn baat rek dafa am lu mu lay junj mbëkk moom dafa dafa wóorul te waxuma la nag bu fekk lu toll liggéey géej nga koy mbëkk loolu moom wóorul ndax géej moom ku ci plongé sax te mënoo géej moom lam rek nga cay jëlee kon baat bi ci boppam premièrement dafa am risque ab destin ngi taxaw def yéegu te xamoo ndax di nga ci génn wala doo ci génn moo tax ñu wax ni al hijratu mustalahun yushiru ila intiqaali naas fardan aw afraadan aw min mawaatinihim al asli ila makaani axar dañu wax ni émigré benn waxin la boo xamante ni dafay junju ay nit yoo xamante ni dañuy toxu dañuy déplacé fan lañu déplacé wu jëm mën nañu déplacé wu individuellement mën nañu déplacé wu par masse mën nañu déplacé wu par kenn kenn waaye mën nañu déplacé wu tamit ci mbooloo di dem jóge ci béréb seen jëm ci beneen bërëb te béréb ba ñuy jóge mooy nekk béréb boo xamante ni mooy seen dëkk nga xamanteni moy seen dëkk bi ñu dëkk juddoo fa waaye dañu dem ci beneen place boo xamanteni juddoowuñ fa والاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت بحثا عن مستوى أفضل لعيش والسكن والأمن. دعني أقول نيوم فوق نيوم دفع أمن في يعقوب lan lañ fa yaakaar dañu yaakaar ni bu ñu demee dinañ fa dem am lu ñuy wax sta stabilité dinañ fa am ak dal dal boo xamante ni dafay nekk dal bu sax ba faaw wala dal boo xamante ni ab diir lay doon te lañ fay wut tamit mooy dañuy jàpp ni bu ñu demee ci réew yooyu nga xam ni fa la dem danañ fa am dund bu gën dund bu ñuy dund seen réew yi ñu jóge dund googu nag dana tegu ci dëkkuwaay ba war ci sécurité bi nga xamante ni moom la fay fekk waaye loolu mooy xamale immigration ci boroom xam-xam yi borom xalaat ci lu mel ni Nations Unies nga xamante ni ñoom ñooy xalaatal àdduna bi yëpp ñoom ñoo bokk wax naan ni loolu mooy immigration définition boobu lañ ko waaye boo defee ci borom xam-xam yi islam yi nga xamante ni gàddaay dafa nekk loo xamante ni lu fi yàgg la mhm. sànq professeur xaw na laal tuuti historique gàddaay depuis bi yàlla subhaanahu wa taala bind doomi aadama ba léegi moo yàlla mam aadama fañ ko bindee woon fañ ko wàcce woon bokkul ak nga xamante ni fa lañ tëdd tey dafa jóge ci béréb dem ci béréb nga jël noonu ku ñuy wax yonent yàlla luut mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn Euh, hadis ni Osman ibn Affan mom moy ki njëkk def gaday ci xéetam ginnaw yoon ci Yalla lu ndax yoon ci Yalla lu Yalla bi mi namé ala ña doon jëf-jëf yu bon yoy ci réew da ko waxon ni yow jël saxam yi nga and ak ñom ngeen émigré ngeen dem ci beneen béréb te bu ñuy dem bu ci kenn gessu gis nga ka sa gessu woon muy soxnaam sa àndoon ak say say yooyu yàlla alal ko kon loolu tax dañ koy romb rek pour ñu xam ni gàddaay yàgg na Ousmane ibn Affan tamit gis nga keroog bi nga xamante ni yonente bi wax na saxaaba yi ni leen da ngeen a war a gàddaay dem ki nga xamante ni mooy xabasa muy Éthiopie moom tamit dafa jiitaloon njabootam yëpp yóbbu leen kon kooku gàddaay la boo xam ne defoon gàddaay maas ñoon jàll lu dafa gàddaayoon ci ànd ak mbooloo Ousmane ibn tamit def ko ànd ak famille gàddaay noonu la fi yàggee ndax ñëpp ku dégg baatu hijra al hijratu xam ngeen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu yebalee saxaaba yi ñu dem xabasa dem fa gàddaay muy Éthiopie gii ñu jóge ñoom jaziratul arabia ñëw fi nga xamante ni mooy ifriqiya muy Afrique fii ci Éthiopie kon ginnaaw loolu moom yonente bi yabalaat na ay saxaabaam ñu jógee makkatal mukarram jiitu ju ko madinatul munawar ñenn ñi ñenn ñi mu def fekki leen fa ginnaaw bu ñu ànd ak abou bakri dem def loolu nga xam mooy bi jël nag kon loolu tamit historique la ci gàddaay noonu tamit la ko mag ñu toppee mag ñu baax ñëpp ba ñu yegg ci suñu mag yi nga xamante ni ñoom dëkkal ci réew mi professeur Bacci wax na ni képp koo xamante ni mag ñu fi mën a rek ci mag ñu baax ñu ngi dalal suñu mag ñam imam bu baax a baax di ko ziyaare di ko jox wàccuwaayam mag mu fi mën a tudd rek ci mag ñi nga xamante ni ci ñoom lañu def xutwa di roy ci ñoom fa ñu tëdd tey juddoowuñ fa fa ñu tëdd tey juddoowuñ fa bu ñu jëlee ku mel ni alxaaji malik si radiallahu anhu xam ngeen ni gaaya la fekk baax ba la juddoo ma juumul waaye mu ngi tëdd tey ci kon dafa déplacé fa def immigration man loolu mooy al hijra daaxiliya immigré boo xamante ni dañ ko def ci biir réew mi te loolu tamit moo gën a bëri sax al hijra xaarijiya moo gën a bëri immigration bi xamante ni nit ñi dañ koy def ñu dem extérieur ñu jëlee ku mel ni sama maam Cheikh Bou Kounta moom moo ngi juddoo Ndànk waaye ñëw sanc dëkk bu ñuy wax Njaasaan mm-hmm. nekk foofu waaye bàyyi juddoowul ci réew mi moo ma jógee Algérie moo ma jógee Algérie fu ñuy wax Adrar di dëkk bu sori ci Algérie dem naa ba foofu diggante Alger rek nga xam mooy capitalu Algérie ak foofu nekk na mille cinq cent kilomètres kon sori la jógee ñëw tëdd si fii kon immigré yàq na boo jegee ku mel ni Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul gis ngeen ba mu juddoo ak ba mu tëdd dégg nga Mbàkke Mbàkke Bawol wala juddoo ñu ñëw tëdd fi xam ne mooy Tuubaa ci bu mooy jumul noonu koy toppee man kon tukki moom dafa yàgg immigré dafa yàgg ci doomi aadama bu koy def dafa bokk ci dund doomi aadama te dinañ ko mën a gis ci biir waxtaan bi boo jëlee nag al hijratu islaam dañ lay wax ni maanaaha hiya alxuruju min ardil kufri ila ardil islam islam ni mu gisee li nga xamante ni mooy immigré mooy jugee ci dëkk boo xamante ni dañ fay mooy yàlla dëkk boo xamante ni dañ laa tere nga jaamu fa yàlla xatal nañu ci sa diine nga jóge fa dem ci beneen dëkk ngir rawale sa diine mun nga mun bugg faa mën a jaamu yàlla man faa def sa diine ci ni nga ko mënee loolu mooy dégg ñu islam ci li nga xamante ni mooy immigration léegi kon am nañu dégg-dégg bi nit ñëpp gis ni loolu mooy immigré am tamit beneen dégg-dégg boo xamante ni suñu diine moo ñu ko jàngal te loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon am ngeen ni yonente bi màkk la juddoo fa la ay mbokkam nekk fa la xam fa la bëgg benn dëkk gënal ko màkka keroog bu muy génn di dem gàddaay moo ngi gestu dëkk ba di wax ni dëkk bii de mooy dëkk bi gën ci dëkk yi ma bëgg moom laa gën a bëgg maa ngi dem di ko wan ginnaaw ndax yàlla moo ko jox ndigal ni ko fii kat xatal nañ la fi say mbokk ci boppam xatal nañ la fi mënatoo fee julli ndax booy julli ñu lay fitnaan di jël ay sébiritu giléem wala mbàq giléem di ko teg sa kaw boo su jootee war a ñu ñëw fekk yoon yi ngay jaar ñu koy tuur lu bon di sonal kon tey jii na ngeen gàddaay ngeen dem Madinatul Munawwara pour rawale ci fépp seen diine moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak saxaaba yi bi nga xamante ni wax na leen na ngeen jógee Makka dem Madinatul Munawwara wax ak ñoom xadis boo xam ne xadis bu siiw la amul benn borom xam-xam buy bind téere ci wàllu fépp du dul ni moom la koy tàmbale muy xadisu Omar ibnu Xattaab إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو او فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم تيلا teel a wan jullit orienté ci wax leen ñu koy defee ak lan mooy immigration bu valable mooy da leen a wax nit ki indi leen benn règle boo xam ne règle générale ndax bu ne innamal jëf yëpp jëf jëf rek moo xam ci diine nga ko teg moo xam ci aada nga ko teg moo xam loo ko mën a teg rek moo ngi tegu ci yéene kon doomi aadama amul lu muy def ku dul dakaa ci yéene mu ni wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa mu def asl mu ni képp koo gis tamit waaye loo gis muy def ab nit mbir am na lu ci yéene ku def dara ba pare ngeen ko lii loo ci yéene mun na la yéene wu ma ci dara dalaa wax mu dul dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba pare kenn di ko teg ndax laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa yonent bi ne lu waay def rek am na lu mu ci yéene tey jii ñun ñii fi ñëw teew rek am na yéene koo yéene sa digganteeg imaam papa Abdoulahi Lay am na yéene koo yéene sa digganteem ak njabootam am na yéene koo yéene sa digganteeg ñëw teew am na lu tax nga ñëw teew fii kon am na loo ca yéene yàlla di wax ni képp koo xamante ni nag da ngaa di gàddaay ngir yàlla ak yonentaam xamal ni di ci am yàlla dinga ci am yonent waaye képp koo xamante da ngaa jug di gàddaay ngir àdduna boo xamante ni da koy sàkku li duniyaa yusibuha ngir àdduna boo xamante da nga koy wut te loolu ci lañu toll point boobu dañ ciy dellusiwaat boo gisee ni immigré yëpp àdduna la ñuy wuti àdduna la ñuy wuti comme yegguñ ci loolu nag dama koy junj rek jàll war a nga ngir wut àdduna boobu da see bokk ba léegi tamit jigéen joo xamante ni gis nga ko nga xemmee man ko mu joge ci dekk ba dem fenen ndax jamono joju makka sahabiya yi ko doon dundu mhm. amna ci ño xamanteni dañ leen gisoon ba ñuy dem dañu gaday and ak seeni borom ko kër wala ñu and ak seeni bay baay mhm. te am ci ño xamanteni ni ñoo ngi lekkon ci dekk ba xeemeemoon nañ leen pour jël leen soxna mhm. bu ñu gaday gàddaayu dem fekk leen ci medina Madinatu mëna wara ñu leen mëna jël yonent bi teel alerte julli ñi ni leen boy gaday rek koy gaday ci diko jaar waye gaday ngir aduna jaru ko muy ñaar yooyu muy li dunyaa yu si buxaa da ciy dugg alal da dugg wut wut ay pour ñu nit yi tekki na ak lu mel noonu lu bëree bëree bëri da dugg kon xam nañu léegi lan mooy immigré léegi lan mooy façon wu immigré yi am muy am waaw hijra façon immigré yi dafay nekk ñaar borom xam-xam yi dañ ko séddale ci ñaar fi mu ne nii ñëwaguma ci immigration clandestine maa ngi ñëw ci al hijratu fi islam dañuy wax ni al hijratu nawaan immigré ci islam dañ ko xaaj ñaari xaaj xaaj bi ci njëkk te xaaj boobu benn doomu aadama du ci mucc maanaam benn jullit du ci mucc mooy alhijratul maanawiya dañu am lu ñuy wax alhijratul maanawiya mooy benn bi ñaareel bi mooy alhijratul xissiya alhijratul maanawiya ñu wax na ni mooy hiya hijratul insaan lima xarama allahu anhu mooy nit ki gàddaay lépp loo xamante ni yàlla da ko xaraamal ci moom kooku du question mu nga génn sa kër dem ci beneen kër war nga génn sa dëkk dem ci beneen dëkk war nga génn sa réew dem ci beneen réew kooku ci sa xel lay nekk ak ci sa xol mooy nga fas ni si yow ci sa xol gàddaay ni lépp loo xamante ni yàlla dala ko tere fas yéene jëm ci lépp loo xam ne yàlla dala ko digal kon islam loolu la la ni la boo fas yéenee wuti dara yow ci sa bopp yaay jëkk a defar sa bopp mooy nga defar sa bopp ba nga xamante ni tasbiyatu nafs defar sa bakkan ba nga xamante ni yow da nga gàddaay lépp lu bon seen a jëm lépp ci lu baax loolu buñ ko doon ci benn baax dañ naan mooy ak tawba ndax foo fekk kuy tuub dafa fekk mu am ci lu mu nekkoon lu bon mu gàddaay la fa seen dem ci neef boo xamante ni lu baax kooku mooy al hijratu maanawiya boo ñëwee ci hijra al هجرة معنوية بابو يرتب صلى الله عليه وسلم وحنا في بين حديث بو خمتني عبد الله بن عمرو موكا نتني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هاجر من هجر ما نهى الله عنه موغني يونتب صلى الله عليه وسلم نالو جلد كات moy ki nga xamanteni julit ñi mucc nañu ci loxo mucc ci lamine kon mu melni hadith bi ñun yeen saa dañuy wax hadith bi di ko dagg duñ ko yeggal waye ci riwaya bi nga xamanteni Abdullah ibn Amr mom la indi da ko yeggal yeggali wax ni wal muhajiru man hajara ma naha allah an neena na ki nga xamanteni moy gaday moy ki nga xam dafa gaday liko yàlla subhanahu wa taala tere jëm ci li ko yàlla subhanahu wa taala digal ñaareelu façon wu gàddaay te li ñuy bëgg a waxtaane ca lay dugg wala dana fa mën a dugg mooy al hijratu xissiya fa minha loolu hijra xissiya boobu mooy hijra boo xam da koy ci ay jëf boobu nag dafay séddalikoo ci ñetti tomb tomb bi ci jëkk mooy al hijratu min daaril kufri ila daaril islam ka hijrati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa baadi sahaba mooy jóge ci dëkk boo xamante ni dëkku kéeféer la dëkku mooy yàlla la dëkk buñ la xatal la ba mënoo foo jaamu yàlla nga dem ci dëkk boo xamante ni da nga koy wuti mën fa jaamu yàlla ay nitu yàlla ñoo fa dëkk pour nga mën fa mottali sa diine kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko te yéen ñëpp ngeen xam ko muy hijratu nag yi muy gàddaay boobu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay na ko jóge Madina jóge Makkatal Mukarram dem Madinatul Munawwara digal na ko tamit saxaaba yi ñu def ko ci xabasa muy ëcco bi àndaatal ñoom tamit dem Madinatul Munawwara kon loolu lu am la ñaareelu tomb bi mooy hijratu ardu suufi ila ardu salaat mooy nga jóge ci suuf soo xamante ni suuf su suuf du bon hmm. suuf du tilim waaye dafa nekk mooy bon mooy tilim maanaam suuf soo xam ne yow da faa jëf ay jëf jëf nga fa bàkkaar yu bëri def nga sa sa jeunesse ba nga ko defee am naa ay jumte yu bëri yoo fa def nga toog ba mu yàgg nga ni suuf sii daal man daal nguur gi ma nekk lu ne def naa ko tey jii boo fi bëggee nekk jaamu fi yenn jaamu yàlla yi nit mën na ma gis sax fekk na man tuub naa waaye mu fàttali ma sama démb ba loolu tax ma découragé léegi kat damay gàddaay jóge fii dem fu mel ni Tiwaawan war ma dem fu mel ni Jaasaan war ma dem fu mel ni Touba war ma dem fu mel ni Kaolack pour bu ma fa demee toog dinaa fa mën a jaamu sama yàlla jaamu yàlla subhaanahu wa ci ni ma ko bëggee jaamu ci tuub ci dellu ci loolu loolu am na benn xissa bu ci borom xam-xam yi di indi mooy xissatu qaatili xisatu xaatili mi atta nafs mooy waajoo mi nga xamante ni dafa rayoon quatre vingt dix nañ nit yàlla wala quatre vingt borom yi xam-xam bi mu toogee ba mu yàgg mu yëg ni moom mii kat def na njombe ndax rey na bakkan lu bari te bàkkaaru rey bakkan dafa nekk loo xam ne lu rëy la ci diine mu ne ah man mii kat naa dem waxtaan yeeg borom xam-xam mu wax mu wax man nan laa mën a def ba bakkar ni mo man ko tuub bi mi demé ci benn borom xam-xam laaj ko ni ko man ta dama ray 99 vingt ñeen fukk ak juróom ñeent nit yàlla wara borom xam-xam wara julli ma bëggoon nag nga wax ma ndax bu ma tuubé yàlla dina ma jéggal borom xam-xam bobu ni ko yàlla dina jéggal ndax ku ray benn bakkar nenañ so jassaw jasaa jahannam ku ray benn bakkar mom sa tay moy safara mu ni ko ah comme nag damay dem safara yow moom du la fi bàyyi dama lay yóbbaale wala dama lay rey mu daal di jël borom xam-xam boobu daal di koy rey muy téeméer léegi rey na téeméeri bakkan mu jógee fa daal di dem ci beneen borom xam-xam ni ko man kat damaa rey naa téeméeri bakkan nekk ni ko la mu waxoon kële kooku ni ko ah li ngay def de mooy da ngay gàddaayee suuf si nga nekkoon fa nga leen reyee nga def ci suuf soo xamante ni mosoo fa def benn bakkaar boo fa toogee tuub jaamu yàlla yàlla dina la jéggal moom si la fabu daal ni day dem ci beneen dëkk boo xamante ni musu mooy yàlla bi muy dem ba ca yoon ba la yàlla yebal malaaka mu jël bakkanam mu dee bi mu deewee la malaaka yi yërmande yi ak malaaka yi mbugal ñëw di ko xëccoo bi ñu koy xëccoo ba mu yàgg yàlla yebal jibril ni ko demal nga àtte boo demee nee leen nañu natt diggante dëkk bi nga xamante ni fa la nekkoon di fa doon def jëf yu bon yooyu leen ak dëkk bi nga xamante ni fa la jëmoon bu ci gën a jegee mu xam ni foofu la jëm bu jegee dëkk bi mu jóge woon ñu xam ni safara la jëm waaye bu jegee dëkk bi nga xamante di fa la jëmoon doon tuubi ñu xam ni àjjana la jëm bi ñu ko nattee mu gën a jegee dëkk ba mu jëmoon yàlla ni jël leen ko ngeen yóbbu àjjana kon loolu tamit hijra boo xamante ni la dafa am sa nit ñi dañ koy jëfe nit ñi yàlla yi yàgg nañ di ko jëfee yàgg nañuy dëkk ci béréb ba gis ni fi kat amna fi lo xamanteni man na gattal gàttal seenu dund ñu ni nañu dox dem ci benen béréb pour man fa dund fa seen diine pour man tamit seen borom subhanahu wa taala ba ko moy al hijratu ila jihad dafa islam dala may ngay gaday ngir dem def li ñuy wax jihad xex ci islam xex ci yoonu yalla yàlla islam dala ko may comme lu mel ni tey ci gàttal Palestine jullit ñaa nga fa ay juif di leen di fitnaal nga ni man tamit damay jógee Sénégal yi dagg paas pour dem Palestine jàppale jullit ñooñu ci xeex bi islam may na la nga def immigration boobu muy immigré pour dem xeex ci yoonu yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax na benn xadis ci gàddaay ngir xeex yi ci yoonu yàlla mu wax ni laa hijrata ba'da al-fathi walakin jihaadun wa niyyatun wa idaa istunfirtum fanfiru mu wax ni gàddaay kat na ginnaaw ba ñu ubbee màkka ndax avant ñuy ubbi màkka képp ku nekkoon biir màkka islaam dala defoon muy farata ci yow muy julli nga gàddaay jóge màkka dem tekki yonent bi sallallahu alayhi wa ca Medinatu Munawwara waaye li yonent bi ñëwee ubbi si Màkka nag léegi Màkka tamit nekk dëkk islam comme ni Medina nekkee dëkk islam nga xamante ni toj nañu xërëm ya fa nekk génn fa lépp loo xamante ni shirk la génn nañ fa lépp loo xamante ni mooy yàlla la islaam di ko gouverner yonent bi nee nag ginnaaw ba ñu ubbee Màkka gàddaay amatul lu dul ni ngay gàddaay pour dem jihaad yi war a ñu xatal la fi nga nekk nga dem wuti feneen foo xamante ni da nga koy rawale sa diine moo tax alquranul karim indi na ay aaya yu bëree bëri ci jàngale lan mooy immigré indi na lu tolloog fukki aaya ak benn ci biir kaamil bi fukki aaya ak benn yoo xamante ni baatu hijra am na ci ñu ci sippi lu toll ni benn aaya rek ngir bañ a guddal muy inna alladina aamanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله wallahu غفور رحيم yàlla wax na ni ñi nga xamante ni dañaa gëm ak ñi nga xamante ni dañaa jub di gàddaay waaye yemuñu te ñuy jam di jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla ulaayika yarjuuna rahmatallah ñooñu kat ñoo ngay sàkku ñoo ngay yaakaar am yërmande yàlla mu ni inna allaha wallahu ghafurur rahim yàlla de ku mën a jéggale la ku bëri yërmande la waaye ki nga fukki aaya yooyu ak benn alxuraan indi ko aaya boo ci gis yàlla subhaanahu wa bu waxee ni na gàddaay da ngay gis ni fa mu fa mu fa muy wax ne ngeen fa gàddaay jëm mooy fi sabilillah mooy fi sabilillah kon jullit bu bu fësee ne jub ni day gàddaay rek gàddaayam bu mu ko war a jëmee mooy mu def ko ci jaamu yàlla mu def ko pour jaamu yàlla kon loolu mooy orientation bi nga xamante ni alquran jox nañu ko sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu tamit gàddaay ci xadis boo xamante ni Omar Omar ibnu As Omar ibnu As moo ko jàngale moo ko solo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ma alimtu anna al islaama bismillah jërëjëf defe naa bu ma juumul délégation monsieur le maire la ndax seet naa sama sama sama sama góor sama mu seet ñu ngi leen di dalal bu baax a baax kon Omar ibnu As wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wax ak moom Omar ibnu As ni ko amma alimta anna al islaama يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أمر ابن عاص نانا يونس صلى الله عليه وسلم وهم نقولي يو أمر ابن عاص فنا خموني إسلام دا فاي ماب كل ليغا خامتي ني موكو جيتو نيت كي بو توبي توبي سي إسلام نيمو مانونا ديك سي بكار ريك بس بوبو سيت نا ويتي mu ne ko yow tamit xanaa xamoo ni gàddaay dafay màpp li nga xamante ni moo ko jiitu woon nit ki lu mu mën a def ci béréb ba mu yàgg mu toog xam ne béréb bii kat taqal na béréb bi ndax wax naa ni béréb moom du tax ki koy fa nekk bi ba moom mënatu fa nekk mu ni moom na ko jógee dem wuti beneen béréb bu set pour laa boobu moom mën a setal boppam yonent bi nee na gàddaay boobu dafay màpp immigration boobu dafay màpp li nga xamante ni moo nekkoon li jiitu yëpp dañ koy fàtte bi waat ko beneen page mu ni ko xanaa xamante ne ak tamit dafay dafay fóot doomi aadama tamit ba mu set wicc ci ay bàkkaar kon loolu mooy dëli li nga xamante ni mën nañ ko indi ci gàddaay ak ci biir alquran ci ak ci biir sunna bëri na parce que am na lu mat neuf hadis yoo xamante ni wax na ci gàddaay muy immigration am na fukki aaya ak yoo xamante ni baatu immigration ñëw na ci am na ku ma ci junj sànq yi si des incha allah ku ko gëstu ci biir alquranu karim di ko gis yomb na lool léegi portable yi boo amee application yooyu nga xam ne kaamil alquran ba la ne am na fu ñuy def baax muy recherche boo fa duggee baatu alxuraan boo bëgg a xam ñaata la boo ko tàppee rek da indil aaya yi mu la yi mu nekk yëpp bu defee nga xam ni baat bi nangam na ci biir alxuraan nga daal di topp nag continue yi xool moom alxuraan fan la ko dugal ak fan la bëgg fan la ci orienté ci loolu loolu ñu bàyyi loo ci xel nit ñi léegi lan mooy cause muy asbaabul hijra sirriya cause yi nga xamante ni mooy nit ñi di gàddaay di immigré jóge ci seeni réew dem ci ay réew ngir yaakaar ni buñ fa demee dinañ fa am jund bu gën a neex ci réew mi ñu nekkoon war a dinañ fa am stabilité war a dinañ fa jële koom koo xamante ni dinañ ko mën a delloo ci seen réew boo xoolee immigration clandestine dafa am ay cause yu koy waral cause yooyu nag mooy aju ci dëkk yi nga xamante ni fa la nit ñi di jóge ak dëkk yi nga xamante ni fa la nit ñi bëgg a dem ndax nit ki bu bàyyeekoo fi mu judd fu mu juddoo am fa ay mbokk am fa soxna am fa njaboot bàyyi ko loolu yëpp fa seenee jug ni day dugg ci mbeex mi maanaam ci gaal bi dem ci mbëkk mi am na lu ko tax a jóg olof dafay wax ni mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax mag buy naan ndox mu tàng Boucar Sarr tax kon am na ñoom lu leen tax a jóg loolu leen tax a jóg nag moo gi nekk ci dëkk bi ñuy bàyyi ko comme ñun Sénégal la ñu nekk Sénégal bi am na ab tolluwaay bu mu toll boo xamante ni moo tax jeunes yi jóg fa seenee dem immigré mu jaral leen ñu bàyyi fi li ñu fi amoon yëpp dem di ko dem di immigré ba ca njëkk mooy alfaq muy ñàkk ñàkk pauvreté nga xamante ni léegi pauvreté am na ci biir société bi yegg na foo xamante ni képp koo xamante ni gor nga tey dëkk te dëkk dund ci réew mi da nga toog ba mu yàgg nga ni man nii kat téemaa dem defi nàngam doo ca xoolati ndax islam digal na la ko wala islam digalu la ko ndax jaar na ci yoon wara jaar ci yoon mooy tey jeunes yu bëri li ñu doon jàppandi ci liggéey ba mën a am daal loolu tey joxatu leen daal moo tax ñu jël nag seeni bopp bëgg kaa sol ci géej gi pour bëgg a dem fi nga xam ne mooy Europe ñaareel bi mooy al bataala mooy chômage mooy ñàkk liggéey mooy ñàkk liggéey parce que ñaar yooyu dañaa dañaa lënkaloo ñàkk ak ñàkk liggéey nit ki bu amul liggéey dafay ñàkk nit ki bu amul xam-xam amul métier dafay ñàkk boo gisee euh, jeunes yi état bi ne leen di jàngaloo da ngay jublu ñu yóbbu la école nga jàng primaire def moyen def lycée dem université jàng ba jeexal këy yi waaye jël si doo mën a liggéey daal amul amoo liggéey am nga diplôme yi ñu la laajoon yëpp waaye amoo liggéey état bi tamit teg ay projet yoo xamante ni tegoon na ko. pour dum pour dimbali ci jeunes yi waaye da dem ba ci biir nga gis ni projet yi niñ ko waroon a sàmmee pour jeunes yi mën cee dund defuñu ko muy financement yi fi ñu ko waroon a jaarale pour mu yegg ci ñi nga xam ñooy ndaw ñi ko soxla pour mën cee dund mën cee am liggéey mën a créer ay ay ay ay ay ay ay liggéeyukaay loolu jaar foofu de ñàkk jaar boobu muy ñàkk jaar foofu nag dafay indi ay nataa'ij salbiya dafay indi ay résultats yoo xamante ni négatif lay doon résultats yooyu da cee bokk mooy immigration bi ndax bu fekkee ni état bi dafa taxawal ay kees yoo xamante ni dafay dugal xaalis bu bëri ni leen lii kat jeunes yi nañu bind seeni projet bu ñu ñëwee ngeen financé leen waaye ci biir loolu da ngay gis nii ña ko jiite war a ña ca nekk dañuy jël ci projet yooyu am ñu ci favoriser am ñoo xamante ni duñ leen ci favoriser boo ko waxee dinañ ko wéet dinañ ni déedéet loolu dañ ko teg ci yoon waaye dinañ gis ni li ci ëpp seeni partisan la ñuy financé ñi nga xam ne ñoo faral ñoom ci wàll parti ba ñu bokk ñi boobu ak ñoom xamuñu leen amuñu branloo amuñu fu ñu mën a jaar ba mën a jot ci loolu ñooñu lu ñuy def dañ naan kat pexe mi fi nekk mooy nañu jël mbëkk mi jël gaal bi dem defi li ñuy wax barça wala barça dem Barça rek Barcelone wala ñu dem Barça ñetteelu cause bi mooy adamul istiqraar ñàkk stabilité réew mu amul stabilité réew mu amul dal jeunes ya duñ fa toog loolu xëy na Sénégal moom ci bëgg a dugg waaye duggaguñ ci loolu te yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu fi ñàkk stabilité am yàlla fitna am fii Sénégal ndax ñun lu ñuy nitu fitna sénégalais amul fitna sénégalais jàmm la am waaye boo demee ci réew yu mel ni Algérie nga dem ci yenn réew yu mel ni Libye ak yooyu nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñuy immigré boo demee tey Europe ñoom nga fay fekk la leen yóbbu seen jeunes yi yu bëri yóbbu leen foofu mooy seeni réew moo yëngatu xeex am fa fitna am fa ñoom ñëpp ñu daal di def ni dañuy dem immigré yi pour mën a am jàmm léegi nag ñu ñëw ci euh, nan la islam àttee li nga xam mooy immigration clandestine xam ngeen ni baat bi rek da lay wan lii teguwul ci loi kon lu teguwul ci loi islam mënu cee ànd ndax dañuy wax ne alhijratu xayru charia boo jëwee ci baatu français bi nga ni immigration clandestine lépp lu ñu def clandestinement mooy loolu teguñu ko ci yoon da nga koy def waaye état justice jox la ci ay digal pour nga war ko a def buñ la ci jàppee dañ lay tëj ndax délicat wala dañ lay corriger am na nag ñu koy layal am na ñu koy layal ni ah yàlla moo ñu sant ni nañu jub dem ci kaw suuf ngir wut loo xamante ni dañ koy dundalé suñuy njaboot kon nit ki bu amul sañna dem tukki wa sañna tukki waye ban tukki ak naka lay tukkee ndax yàlla subhanahu wa taala mo wax ci alquran karim fi suratul mulk muy suratul tabarak wax ni huwa alladhi jaala lakum al ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur aya 15 yàlla mo wax ni man yàlla maa leen defal suuf si suuf si maa ko def mu nekk suuf soo xam ne suuf su tàllalu la ngeen war cee mën dem fu leen neex fam suuf na ngeen dox fii manaakibihaa ci ay géndam ci ay pàkkam dem leen ci foo leen bëgg dem waaye wa kulu min rizqihi ngeen lekk nag ci meññeef ya fa nekk meññeef ya buñ ko waxee du garab boo fay dagg meññeef waaye mën nga fa dem am fa salaire mën nga fa dem am fa sànke boo liggéey ñu fay la nga delloo si ko loolu ba léegi day dugg ci biir meññeef yi boo jëlee gis suuf dañu xam la ñuy dellu kon nga xamante ni mooy frontière yi nga xamante ni moom la ñu rëndal suñu bopp ñun doomi aadama yi yàlla bi bind suuf woon waaye def nañ ko te muy organisation tamit bu baax. waaye organisation boobu warul tax buñ na leen réew mii may ñu la pour nga dugg fa lu dul ni da am passeport ñaan visa ñu may la nga bëgg a nëbbatu pour dugg fa islam du lay jàppale ci loolu ndax islam dara wax ni lépp looy def na ko teg ci yoon ndax jullit dafa war a jub dafa war a wax li nga xam ne mooy dëgg te xam nga immigration clandestine dafa ànd ak wax lu lu dëgg ndax bëri na ñoo xam ne ñooy dugg ci réew yi réew yi tubaab yi lañ leen laaj buñ ko tontu woon ci dëgg dañ leen di delloo si nit day jóge fii dem ci immigré gi ñu laaj kon du la yow loolu fi indi mu ni man suñu réew dafa am xeex war a man euh, dañ maa exilé ndax politicien naa bu nekk ci réew ma nekk opposition sonal leen ñu ñu dàq ma war ñu may bëgg a rey ma ñëw pour làqatu si fii war a am na sax boo xamante ni moo gën a ñaaw boobu ñu naan léegi am na su ñoo xam bu ñu demee dañ naan ñun su Sénégal dañu nekkoon ay góor jigéen lañ fa te Sénégal bëgguñu góor jigéen dañ ñuy menacer pour rey ñu ñu bëgg ngeen may ñu ay kayit góor jigéen bu ko defee ñu mën a nekk ci réew mi ñu koy def ni ñu ko mën a defee. loolu feeñ na ci étude yi. te ñu ñu ko wax ay ay ONG la yoo xamante ni dañuy liggéey ci loolu maam Moussa mii waxoon naa leen sànq ni imam Moussa lay mii def na ci conférence ci sama buntu kër ànd ak ONG boo xam ne ci loolu la ñuy yëngatu ay espagnol nekk ci ak ak Maroc benn marocain ak ay sénégalais kon loolu du lay damaa ñàkk moo tax may def immigration clandestine wala damay wuti alal damaa bëgg a tekki loolu du lay ci islam ndax islam dafa indi ñaari mbir yoo xamante ni mooy taxaw sa kanam tey jii buñ ne la woon Europe boo fa demee da ngay tibb alal rek boo demee jaru sax ngay liggéey da ngay ñëw rek tonni xaalis ñëw waaye yow nga bëgg ko jaaree ci géej gi war ci désert islam da tegal ñaari mbir ni la ñaar yooyu féet moo ngi ci rek man islam mayuma la te ñaar yooyu mu ñàkk ci ci mbëkk mi ñaar yooyu yëpp ci mooy rey sa bakkan ndax condition yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee gaal yi xam ngeen ni gaal yi nga xamante ni gaal yi banque la amul sécurité pour mën a traverser géej goo xamante ni muy océan Atlantique bii nga xamante ni géej la bu sore sori bu xóot ci biir nga bëgg ko traverser ak gaalu bant ba pare yemoo ci gaal bi nga duy gaal bi ay 300 personnes 400 personnes 500 personnes ci benn gaal ngeen war a def ay 6 jours ci biir ndox bi ci nit ñoo xamante ni ñu ndox. miinuñu ko ndax dina feeñ ci gëstu yi ni nit ñu bëri ñi nga xam ñooy immigré di ñu di di di des ci géej gi du ñuy dëkk ci côte bi bokkul ci ñuy dëkk ci petite côte bi ak grande côte bi ñooñu bu ñu mësoon doon dem ba léegi ba tey bi ñoo ngi dem waaye bu ñu demee dañuy réussir ndax ñoom dañaa xam ndox ci lañ doon liggéey ndax bu jëkk da nga doon gis mool moo xamante ni dem Espagne seen Espagne dem ba seen Espagne yàgg naa am xam ma ndax jotaay bi am na ñu fi doon dem géej ak sëñ bi wax na ni moom dem ca géej la woon. waaw kay nee seen kër juróom ak Espagne. parce ñooñu ñooñu ak ñooñu lañ ko xam muy waa Tafes. ñooñu dañ doon dem dawal seen gaal dem ba frontière Espagne napp jën dellusiwaat. Hmm. booba jën dafa am. booba jën dafa am. ñu am nañu lu ñuy dunde bu ñu demee dinañ napp loo xamante ni bu ñëwee jaay ko moo leen gënal foofu koo ci joxoon visa ni ko kaay dem Espagne ci jamono jooju waaye bu ñu demee ba nga xamante ni bu ñu demee ci géej gi napp bi du ñu am dara bu ñëwee dañuy naru kenn du am dara ñu ni ah léegi kan comme ñun am nañ possibilité mën a jël suñu gaal dem Espagne te du ñu jaar ci avion nañ ko def ñu commencé ñoom ñoom di ko def ba mu yàgg nit ñi nga xamante ni ñoo jugee nag ajoor ajoor yi ak saalum saalum yi ak bool bool yi nga xam xamuñu ndox dañaa mel ni man nga xam ne ab ajoor ajoor la mbuur laa juddoo màggoo fi waaye mënumaa fay ba ñuy dem nag bu ñu ñëwee ci gaal bi fekk fa ñooñu boo maytu bu ñu demee ci gaal gi rek ñoom dañ fay des ndax la leen di njëkk a rey sax du la dañuy neer war a ñu gis yoo xamante ni daleen leen di jaaxal si biir ndox mi ba ñuy déliré di wax nii gaal bi dafa am leneen lu ci nekk te yëpp ay coono moo leen koy indi kon islaam dala wax ni lépp loo xamante ni sa bakkan da ciy des man islaam mayuma la nga dugg ci waaye lépp loo xamante ni dafay toroxal doomu aadama tamit man islaam mayuma la nga dugg ci parce que dafa am juróom yoo xamante ni moom la ñu wax al maqasidul xams juróomi principe yoo xam ne islaam da ko teg ni képp koo xamante ni da bëgg a dund islaam ak àtte bu islaam di teg juróomi principe yooyu da ciy bàyyi xel ba ca njëkk mooy sa diine foo xamante ni sa diine dafay yàqoo islaam bëggul nga dem mhm. foo xam ne sa bakkan da cay des islam bëggul nga dem ci foo xam ne sa der dafay yàqoo mooy sa sa sa sa der sa sa dignité mhm. sa dafay wàcc dafay wàccee islam bëggul nga dem sa deret bi tuuroo te tuuru deret ja teguñu ko ci doon yoon islam nga dem fa foo xam ne sa alal dafay yàqoo islam bëggul nga dem yooyu ñooy xam xams yoo xamante ni fuqahaa yi dañ ko teg ni juróom yi lépp loo xamante ni julli da koy def bu ci benn manqué ca yooya war muy indi risque ca yooya dañ lay wax ni bu ca def usulu yu ni wax ni irtikaabu axaf darara bàyyi moom daane yi ni ñi nga xam ne ñooy jàngale wàllu usul mm-hmm. te usul mooy xam-xam bi ñuy seggee mm-hmm. atte yi mën a xam ni fii la àtte bi tàmbalee fii la jëm fii laa ko bëgg a yóbbu keneen bu ci ñëwee nii laa ko war a mën a àttee ñoom dañuy wax ni buñ la tegalee ñaari mbir da ngay seet ba ca gën a moyen danger ba ca gën a néew fitna ba ca gën a néew kii moom ngay jël te xam ngeen ni mbëkk moom amul fitna rek la kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax ñaar yooyu yépp nag yàlla wax na ci alquran ni wala tulqu aydiyakum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin boo demee ci surat baqara aye 195 yàlla wax na ni bu leen jël seeni loxo di ko dugal ci alkaange kon yow mi jël sa bakkan bëgg ko dugal ci géej gi pour dem tukki ji yaa ngi jël sa bakkan di ko ci alkaange bu fekkee ni amoo ci expérience fekkee ne amoo si expérience ndax ñi am expérience bi doon dem di dellusi bu ñoom bu ñu bëggee dem ñooñu moom dañuy dem facilement waaye ki amul expérience bi bu ci bëggee dem rek moo ngi dugg ci benn aventurier boo xamante ni risque la ci moom moo tax islam ni la boo ko mënee bañ a def moo gën beneen bi muy suratu nisa boo demee mu ni wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima aya 29 bu leen rey seen bakkan bu leen xaru ndax yàlla de ku leen yërëm la ku leen bëgg la te waaye yow mi nii damay dem wuti am-am bitim réew ba mu jaral la nga ni Barça muy Barcelone war a Barça war ma dem biir bàmmeel ku la wax ni boo fi toogoon benn ak yàlla du la ubbi nga bokk ci millionnaire réew bi bu fi toogal ñaari at ndax yàlla du la boole ci milliardaire réew mi mën naa joxe kenn misaal koo xamante ni fii lay juddoo jàng ci daara yi demul université te tey keroog bi may déglu ci internet bi ñuy wax fukki nit ñu ëpp alal ci senegal moom mooy premier muy Serigne Mboup boo demee ci internet bi tàppe ni fukki nit yi ëpp alal ci Sénégal benn tubaab moom fay wax fukki nit ñi mm-hmm. Serigne Mboup mooy premier milliardaire ci Sénégal ci moom gëstu bu mu def te kooku ndongo daara la woon immigré jiwul kon immigré rek bu mooy may nit alal dina ko maye nag dina ko maye waaye yow bu mu la jaral nga jël fa sa bakkan tay la ko fa islam bëggul kuy foyee bakkanam ndax dafa wax ne bakkan yi ngeen am moomoo leen ko yàlla moo ko moom moo tax boo xaroo yàlla dina ci mbugal waaye bu fekkoon yaa moom sa bakkan boo xaroo yàlla danaan ah bàyyi naa ak boppam kon ci tënk rek ñu xam ni yow mi lay ni damaa bëgg a damay tukki ni damay wuti alal wala damay tukki ngir nàngam loolu du lay mm-hmm. loolu du lay ndax tukki googu da nga cee wàcce sa bopp beneen da ngaa sa da nga cee bëgg a sa bopp ñëw na ci ay information yoo xamante ni jot nañ ko ci ministère de euh, intérieur bu Espagne mm-hmm. mu wax ni ñii ñëw fi nga xamante ni mooy îles Canaries ci ñii émigré ci atum deux mille vingt trois bii ñu nekk ci diggante janvier ba octobre nee na mat na ci nee na na ci.

réew yu mel ni Sénégal ñëw dugg foofu nga xam mooy îles Canaries ñoom ci seeni xayma nee na te boo xoolee ci at bu ko jiitu muy 2022 bi nee na genn wàllu loolu moo fa ñëwoon waaye bu 2023 ñëwee dafa gën a lim loolu nag lan moo ko gën a waral ndax xam ngeen ni immigration lu ci ëpp moo fi tàmbalee 2005 la fi gën a bëri bu jëkk amoon na bu njëkk amoon na ndax man luga laa jàngee te Louga xam nga ni dëkk immigré la ñoom ñaambur ñaambur yi dañ doon jaar ci désert bi wala ñu jaar par étape étape Maroc def noonu dugg Espagne jàll feneen jàll feneen am na si ñoo xamante ni dañuy dem ñaan visa wala ñu falsifier ay visa fexe ba mën a tukki war ñu jël sax seen seen seen seen passeport yi mag ñu nekk foofu ñu fexe ba am nañu système yu ñu fi doon def ba tukki hmm. loolu moo fa xewoon waaye bi demee ba 2015 nguuru président Abdoulaye Wade ñëw dégg nga entre deux mille dix neuf entre euh, deux mille ñu dem ba deux mille cinq ci feewu réunion Abdoulaye Wade maanaam feewu premier mandat bi bii Abdoulaye Wade ci soog ñëw président Abdoulaye Wade da ngay gis ni jeunes yi dañaa amoon expérience am ni xalaat ni réew mi kat comme suñu maam Abdoulaye Wade moo doon wax naan Sénégal comme sera comme Paris comme ni ñu ko doon waxee te nit ñi di ko doon wax bu ñëwee dëkk bi dina changé dana neex ñoom ñu am xalaat ni léegi kat nañu bàyyi immigré yi ñu toog taux bi gën a wàcc waaye bu ñu demee ba 2005 da nga gis taux bi dafa commencé di yéeg bi président Macky Sall ñëwee ñu ne ah comme président Macky Sall ñëw na 2012 léegi nañu xaalaat xool nguur gi lu mu ñuy jox mu commencé moom tamit doxal. waye gis nga biñu démé ba année yi nga xamanteni mo muju gis ngeen 2022 bi 2021 ba 2022 yoyu nga gis ni immigration bi jugee def flambe gëna jugg mhm. nit ñi jeunes ñi gën ci dugg gën ko jugg kon ñak yaakar moko indi te gis nga li suma mbokk mi wax sànq ni ñoom bari na ñu dem ci ñoom ñoom nappkat yi loolu ak jàngat ak gëstu wane na ko wane na ñu ëpp ñii émigré ci sénégalais yi ñii la mooy nappkat yi mooy mool yi dem kat géej gi ak ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ak ñi nga xamante ni ñooy ouvrier yi nga xamante ni dañuy liggéey di def journal journal yi ñooñu ñoo ëpp ci couche yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal di dem di émigré ñu si bëri bu ñu leen laajee ci liggéey yooyu la ñuy ñu si ëpp tamit ci place yi ñuy jugee mooy ñi nga xam dañaa dëkk ci ay périphérie tey boo demoon Dakar boo demee Plateau war nga dem Fann da nga néew nga gis sa jeune bu dëkk foofu dem di immigré waaye ñi ca ëpp ñi immigré mooy ñu dëkk Géejawaay Pikine nga xamante ne ñoo ngi dëkk ci banlieue bi ndax la leen ko yóbbee mooy dañu ñàkk chômage bi amuñu ku leen yor. amuñu benn yaakaar ci ci ci ci ci diine bi ci dëkk bi ci man a am ëllëg lu ñu mën a jàpp ba mën a teg hmm. ñu ni léegi ñun nañu dem wuti ko feneen te ñiy dem di immigré yi waaye waaye buñ ko xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga ni kon ñu si bëri tamit boo xoolee du ñàkk lool moo tax ñu dem di immigré yi parce que ki nga xamante ni booy dem di immigré ji li ngay fay si gaal bi li ci gën a néew mooy 400 bi ci gën a ci li ngay joxe pour ñu mën laa yóbbu quatre cent mille la dégg am na sax immigration yoo xamante ni fu mu ne nii ay million ngay joxe def naa Ibkara ak lan Ibkara boobu waaw quatre millions kon kooku du pauvre du pauvre am na ci lu xam ne bu ko investiroon fii mën fee kii waaye moom la mu jàpp mooy fële moom bu fa demee rek affaire am dafay baax te ndekete bu desoon fii affaire am baax li des bëreetu léegi léegi ñu daaneel moo tax benn borom xam-xam bu ñuy wax violence moom dafa dafa dafa tuddee ñi nga xam ne dafa tuddee ñi nga xamante ni dañuy jël mbëkk bi di def immigration clandestine nee na ñooñu ñooy majnuunul baax

ni nag buñ ko waxé waxu ñu ñuy dem di bëkk rek ñoom dañaa jël ñi jaar ci avion bi mhm. ñi jaar ci géej bi normal ak ñi jaar ci gaal yeeg ñi jaar ci désert bi yooyu yëpp buñ leen buñ yeggé sa temps yi buñ ñu leen enquêté dañ naan Dakar lañ dëkk 30 pour cent yi fa la ñuy mu ni fu mel ni Matam 14 fu mel ni Saint-Louis 10 fu mel ni euh, Diourbel 9 fu mel ni Kees 9 mhm. ñom fa la ñuy faral di jóge léegi nag solution yi fa la ñuy tëjee solution yi mooy ndaw ñi kenn mënatul dugal seen nopp ni boo demee Europe doo teg parce que am nañu tollu Europe di def ay vidéo di def ay live naan leen fii de boo leen ñëwee liggéey baa ngi fii nii gaañ boo leen ñëwee ñu jël leen boo ñëwee li nga am journée nangam ci ci ci ci tool yi nangam nangam nangam di leen di influencé waaw kon bu ñu xësee ba rëcc ñu ba dem ba pare état bi moo waroon am ay politique yoo xamante ni am ay gisin ak jugin yoo xamante ni bu ko defee dana mën a tax bu mën a delloo si ndaw ñooñu

ñun nag suñu population dañu nekk ay jeunes kon état bi waroon na mën a dem négocier ak yooyu ni leen ñii kat suñuy doomu réew la ñëw nañu fii pour wut liggéey dañu bëgg ngeen defal ñu ay contrat yoo xamante ni contrat yu leer lay doon bu weer deewee ngeen fay leen nangam ñu nekk fi nangam yi at bu ñu paree ñu jël si loolu mënoon na nekk waaye suñu état yi bu ñu def loolu ñoom dañuy bàyyi ba xale yi dem ñu fekk leen fa buub leen jëlloo si leen te loolu boo ko defee dafa mel ni moom. jeune bi bu demee di jël géej gi di dem boobu nit la parce que am na am na gis-gis waaye bu demee foofu li mu li mu li mu traversé ci géej ci gis ay nit ñuy dee ñu koy sànni ci ndox bi ci gis ay nit ñuy tiit ci xiif ci mar loolu dem na ba am na leneen lu muy cultiver ci moom benn révolte bu demee ba yegg foofu di am yaakaar ni pour tekki nga fekk ko fa yow dugal ko ci avion ñëw delloo si ko ci réew mi dafa mel ni ab dof nga indi na indiwaatoo nit de ab dof nga indi ndax ki nga delloo si dafa am ràññee am na mer bu nekk ci moom boo xoolee événement yi fi amoon bu yàggul ci événement yi fi am yëpp loolu lu ko li ko ci li ko li ko indi ci la bokk nit ñi def ñu jàngat boobu waaye ki duggee fii jël quatre cent mille am wala mu jël cinq cent mille am tey di xiif di mar di feebar dem foofu sonn tëdd ci ay ay camp yoo xamante ni day dem bay saxe parce que man am naa sama nit koo xamante ni nee na ma jarbaatam bi mu koy jël ci camp bi Maroc nee na camp boobu dañuy boo duggee sax yi ñi ngay gis ñuy ñuy dox ci suuf te nit ñaa ngi tëdd dànkaloo fa la dem moom fay xaalis pour mën ko jël indiwaat te kooku kat bi mu ñëwee ñëwaat na ci man li ma sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma seetal ma yoon bi ndax baax na mu mën a demaat ma daal di koy xoolal daal di koy découragé ko xooluma ci sax damaa bàyyi rek ay fan rek ma woowaat ko di ko yoon bi baaxul léegi wutal ku la finance nga def bi poulailler war nga dem bay waaw parce que risque la dégg kooku bu demee foofu amul dara yëpp xaalisam amul dara nga yóbbu ko bu dem foofu nga bàyyi ba mu dem foofu yow dimbaliwoo ko ba muy dem lebaloo ko xaalis dem na ba yegg foofu nga jékki-jékki buub ko indi ko ëpp nga ko doole indi ko waaye am na lu mu jàpp ci moom waxtu bu yëngatu amee ci réew mi moo tey jiir kon bëri na ay bomb yoo xamante ni ñoo koy jëlee bitim réew di ko indiwaat mooy xale yi ñuy jëli di leen indi bi ci des mooy bu ñu leen jëlee bi ñëw tamit bu fekkee ni mun nga faa def dañ leen encadré bu ñu ñëwee dañ leen financé ñu defar seeni projet di ci jëmbali loolu lu ci am solo la kon solution yi bokk na ci état bi moo leen war a njëkk a taxaw état bi na leen taxaw beneen bi ci des ñun nitu diine yi am nañ ci rôle bu mag a mag a mag ndax war nañu ubbi bopp nit ñi wan leen ni yàlla subhaanahu wa taala kenn ku nekk bu mu koy bind bind naka ak wërsëgam ba pare mu jaar ci géej géej mu jaar ci jaww jeeg mu jaar ci suuf si dégg nga fu mu si mën a jaar wax waxtu ko jotee dina ko jot loolu jullit da ko war a gëm kon bu ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a kon mu mel ni yegg si nañu fu ñuy daanalee suñu kàddu ci immigration clandestine buñ doon résumé daal dañ lay wax ni borom xam-xam yi islam yu bëri nanguwuñ ko ndax ñaari risque moo ci nekk da ngay doyadi sa bakkan te bakkanu doomu aadama yàlla da ko fonk wala xadd karoon naa bani aadama beneen bi ci des da mën nga faa rey sa bopp te yàlla moo wax ni laa tax taqtulu anfusakum waxaat ni laa tulqu aydiyakum ila tahluka kon ñaar yooyu la islam teg sa kanam ni la bu la wóoree ni ñaar yooyu mën na la seetal bu ko ci dugg kon ñoo ngi jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp di ziyaare suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo fi ñëw léegi rot ci jotaay bi te ñoom balaa ñuy yegg si fekk na suñu mag suñu magu daara alxaaji Malick Niang ñëw fekk ñu nekkoon ci biir waxtaan donte tuddoon nañ ko waaye nuyoo bi ñu ko waroon nuyu jox ko cëram ko mu doy ñoo ko koy def di ko ziyaara bu baax di ko dalal ci ëttam ndax moom moom ëtt bi ndax ëtt bi ëttam la di ziyaara tamit ñi nga xamante ni ñëw nañu xëy na dinañ jël seen kàddu ci délégation monsieur le maire te ki ma ci gën a miin muy Omar Moussa Diop ndax sama doomu nijaay lay ngeen daa nangu sama jabar mhm. ñoo koy nuyu bu baax a baax di nuyu mbokkam yu baax yi ñu àndal di leen di delloo euh, kàddu bi defe naa jëmm ji maa koy soog a xàmme euh, fay euh, Ablaye Fay bokkoon nañu liggéey fële ca kër monsieur le ci mouvement boobu ñu doon yëngatu ci P2D programme pour doole daara kon bu ko ñu leen di nuyu di jox sëñ Samba mu yeggali ñu wara yeggali ci kaddu mu ngi jéggalu ñëpp di baaru ak ñëpp fekkee ni ci biir waxtaan bi wax nañ fi loo xamante ni jubul tamit ngeen xam ni bëgg a defar rek moo tax ci ñun la tamit bu jubee tamit ngeen xam ni ci yàlla la subhanahu wa taala walhamdulilahi rabbil alamin suñu bàyyi abdoulahi day yàlla na ko yàlla fay waxtaan bii ñu doon def luñ ci am ci giiw rek yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala ëpp ko ko dañuy jàng ci kaamil yi ak wajifa bi ak ñaan yi ñuy def yëpp yal na ko yàlla fëpp te biir bàmmeelam mu nekk ay leer yàlla delloo suñu barke yi defal ñu ko ñun ñi fi teew ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh